mbooloo mu bari juge ci gox yu fasantikoo naka ci réew mi ñoo woon démb ci diwaanu AIBD ngir mun a teertu ki nga xam te ne mooy soxna Ndaté Cissé moom mi nga xam te ne moo jël concours récital Coran édition 2022 ci diwaanu Dubaï benn kàddu rek doon fa jum nag muy baatu allahu akbar te mbooloo mooy sax ñu mën faa ràññee ki nga xam te ne mooy waajuram bu jigéen ñëwoon teertu li nga mooy doomam moom nag nee na def rek lu dul yëg mbégte gannaaw bi mu yëgee li nga xam te ne nii mooy ndam lu rëy li doom ji am. kontaante ak mbégte rek sama xol sedd bi moom laa ci am te di ñaanal nag képp koo xam ne yëggagoo fa it yàlla na nga fa yegg rek di la ñaanal ndam mu am yàlla na ko nekk ci alxuraan rek nga am. ci fukki atam ci juróom-ñaari atam ci la dugg daal. ci juróom-ñaari la dugg alxuraan. waaw wala féete woon di jàng fanaan moom mi nga xam ne ay atam nag mi ngi toll ci quatorze ans kii di soxna Ndeye Cissé ngir mu yëkkati woon ay kàddu jafe na mais kàddu nekk lu dul rek ay baat alxuraan wa alhamdu lillahi alladi lam yattaxiz waladan walam yakun lahu walam yakun lahu في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم mbooloo ma nag daal di nag koy gunge ca diwaanu Ndakaaru Njaay gannaaw ay bédé ngir mën a rek continuer feete li nga xam te ne nii mooy ndam rëy li nga xam te ne nii lislaam amroon na ko rawatina réew mii di Sénégal